Rewmi 24 TV. dal leen ak jàmm mbokk yi ginnaaw ba ñu leen nuyoo siyaar leen lu doy waar encore ña ngi koy waajalaat ca Sénégal ci Ousmane Sonko digganteem ak Adji Sarr ginnaaw ba nga xamee ne jamono yëpp kenn waxuloon Ousmane Sonko ak Adji Sarr lu ñu doon wax mooy Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang boobu sax jur si fitna bu bëree bëri jur si coow lu bëree bëri fii ci réewum Sénégal. ginnaaw ba nga xam ne fitna Ousmane Sonko ak euh, Mame Mbaye Niang lu muy bari bari fitna bu Adji Sarr bi moom moo koy ëpp fitna bu Adji Sarr boobu nag daal jàpp jàppaat date bi nga xamee ne moom la Ousmane Sonko war a jàkkaarloo ak kii di Adji Sarr mu doon lu doy waar loo xam ne ñu bari ci Sénégalais yi jamono yi daal la ñu jàppoon ba léegi bàyyeeguñ ko mooy Ousmane Sonko candidat am bi euh, la ko bëgg a xañ date bi jàpp nañ ko ci mois de mai bi maanaam la ci doy wa mooy. ginnaaw ba ngay xamee ne sax um, procès Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang boobu daal dañ koy jàpp le 7 mai 2023 bii ñu jëm léegi uh, bu Adji Sarr bi daal dinañ koy uh, jàpp le 16 mai le 16 mai 2023 uh, bii ñu jëm la ñu fas yéene yóbbu ci Ousmane Sonko sam criminelle moo ko Adji Sarr pour jël àtte seen procès boobu ñu bari ci Sénégal yi daal li ñuy wax mooy nemmeeku tur bi nga xam ne Ousmane Sonko lancé na ko fan yi mu war koo def loolu lañ ko bëgg a yàqal. moo waral ñu commencé di yeewaat dossier Adji Sarr bi nga xam ne ñu bari ci Sénégal yi fàtte woon nañ ko ndax dossier Mame Mbaye Niang bii li ci doy waar nag mooy fi mu toll nii bi daal la ñuy jàpp ngir Ousmane Sonko mën a d'accord lu war ak Adji Sarr fële Sénégalais yi nag naqaru nañu jëf ñi nga xam ne moom moo am ci Sénégal ginnaaw ba nga xamee ne Ousmane Sonko ku ko laal léegi laal réew mi ba ñu bari ci ndaw ñu ngi wax ne Sonko kenn du ko laal loolee waral muy génn ay junni junni ndaw ñoom ko topp kon ñaratu nañoo yee fitna daal li des ci euh, mois bi ñu nekk maanaam fii ak 2024 daal jàmm ci Ousmane Sonko moom dafa mel ne maaruñu ko ñoom ñooñu. kon daal loolu la ñu fas yéene maanaam le 16 mai 2023 bii daal kii di Ousmane Sonko dem ca chambre criminelle diggante ak boo xam ne def ñaari at ba léegi mënuñu ko atte kon foofu la Sénégal toll jamono yi ñuy wax ak yéen jaa ngeen jëf mbokk yi.